bu ñibbee këram. voilà c' est c' est bien précis. ba environ deux heures du matin la Khalifa ñibbi këram. parce que booba saafonte na ak waa Ndakaar wi kan la moon mm. après injustice bi ñu teg ci ndoddam. ñu jógee ci loolu. Mm-hmm. ñu jàpp ne suñu mag bi. dafay def météo politique. xam nga Khalifa Sall. non defuma météo non sëñ bi ah, defal nànk rek. non damaa wax ne d'accord tu contestes que météo politique la yëri mais bàyyi ko mu continuer bàyyi ko mu continuer mais xam nga ñun tey bu ñuy ànd ak nit dañuy ànd ak nit sur la base de principe et de valeur. ak kàddu gor te loolu la ñu Khalifa Sall mi ñu ndàmpatal ci politique loolu la ñu yare moom xam na ne tey bu jëloon yoonu boppam moo ciy wét ndax booba bi ñu nekkee biir parti socialiste. ba ñu ñu woon jàkkaarloog président Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana par rapport à des principes par rapport à des discussions par rapport à des dialogues yu ñu amuloon consensus donc tey bu ñu toogee ne Khalifa Sall moom la ñu bëgg a tabb wala moom la ñu xalaat a tabb poste premier ministre loolu ñun waa taxawu Sénégal dañ koy réfuter catégoriquement. maanaam dañ koy dañ koy dax. je pense oui wax non dama koy dax. il faut préciser que tamit noonu la ñu. dama koy dax très malheureux ngeen di convoquer Khalifa Ababacar Sall. lu war a nekk si ay compétition locale qui pourrait faire très très mal à sa coalition. dafa am loo xamante ni tam mhm. aussi. Euh, nañ def ndànk bu ñuy wax kan la ñuy gaañ ak la ñuy defar. fii lu wax bi do Khalifa Sall lay gën a gaañ par rapport à aux enjeux yoo xamante ne fa lañ dem parce que dafa dafa am pour et on n'est pas là waaw parce la perception man noonu la mm. perception parce que quand même des enjeux yoo xamante ne ñu ngi siy ñëw ah, ñu ngi siy ñëw locales yaa ngi siy ñëw waaw man débat bi neewu foofu ce n'est pas nominatif par contre lu ma jàpp mooy que dañuy jaar si local yi dem ci législative et le président de la république nga xamante ne dëkk bi amul premier ministre est-ce que mun na dem si ay législative sans am premier ministre sans la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale sans la possibilité pour Assemblée nationale mun na toog xool wax ak gouvernement bi def motion de censure loolu yëpp c'est prendre un risque parce que tey bu ñu waroon dem législative en 2022 ba pare opposition gagné législative yi mooy que bi day taxaw dootul dem Macky Sall mënatul jëf mënuñ fi def benn de loi indi ko assemblée ba mu jàll si l'opposition dit non et on se retrouve dans une situation non attention je veux dire. l'honorable député dit que c'est pas forcément comme tu le dis non mais loolu parce que y a un article qui permet au président de prendre les pleins pouvoirs si les institutions sont ah, bloquées. waaw qui ont été il y a il a a deux ans